asalaamualeykum mbokk internet yi daleen ak jaam ci Sen Sports 221 Youssouf Sabaly l'international sénégalais dellu si na ci terrain bi mu ngi entraîné ak équipe bi di Real Betis gannaaw gaañu gaañu bi mu amoon bu yàgg ba léegi Youssouf Sabaly xam ngeen ne gëñ na football lool ci li nga xam ne mooy clubam rawatina équipe nationale ndax kat match yi nga xamante ne weesu nañu ko yëpp ba mu bokkul ci ndax blessure yi nga xamante dal da koy tegle kan bi nak fimni ni mel na ni man na ci bok bu len faté né kan ba la ñu bokul bokkul ci won ndax brésil yi bu amon fimni ni nak man na am chance ngir dal di cee dem gëna bi nga xamé né mo dox suñu digënté kan boobule amana ci digënté mu war ci mëna jëba nek en forme ndax kat Youssouf Sabaly boobu fekkente ne pare na Cissé xalaatu ko fi bay ndax moy ben latéral bo xamné Sénégal am na ko fi ci jamono bi té mu ñor xamu wi mu wér ne bu da fay titulaire Youssouf sabali képp lañ ci am ndax ki nga xamné moy Noah Fadiga diggante daaw ba ren kat convoqué nañu ko fi ay yoon bay ba fi waxé amagul sans ngir saabali daal jàpp nañ ne xëy na bu dee wér na mooy kii dem voilà moom nag wér na commencé na wala boog tane na ba commencé na entraîné ak équipe boobu de Real Betis te nañu ne mën na am chance sax ngir joué ci li nga xamante ni mooy match yi nga xam ne jamono bi ñu ngi koy waajal fii rek ñuy yegg ci kan bi kon amaan na mu joué ngir mu war a mën a bokk ci li nga xamante ne mooy liste ab kii di sélection nationale di Aliou Cissé Mbaye Diagne moom dañoo daal di sàcc otom xam nga moom jamono bi mu ngi foofu ci Arabie Saoudite waa càcc gi li ci moo ko dal di sàcc moom sax moo def li nga xamante ne mooy annonce bi dal di xam ne ne carrément oto bi dañ koo sàcc ba dugal photo oto bi ba noppi dugal li nga xamante ne mooy compte Instagram mu chauffeur bi ak jabaram voilà nee na chauffeur bi moo sàcc li nga xamante ne mooy oto bi loolu nekk mbir yu doy waar voilà moom kii di Mbaye jaan bi nga xam ne jamono bi moom ngi def foofu la ca Arabie Saoudite Pape Gueye mom niki ki démb daf doon football son centième match ak équipe bi di Olympique Marseille kon mom joué nak 99 matchs ñu daal di koy acc waye bi mu dellusee ci minute yi njëkk yi moy njëkk joué rek ci la daal di feete li nga xamanteni moy mooy match yoy nga xam dal daal dina ko joué ak ñi di wa Olympique Marseille niki dem démb CAF Award jamono bi kat ñu ngi waajal li nga xamanteni moy final bi xam nañ sax ñi nga xamante ñoo di finaliste yi bu ñu xoolee nag ci mbir moomu Sénégal sax daf cee fees lool voilà bu ñu xoolee ci li nga xam ne mooy meilleurs jeunes yi Lamine Camara ak Amara Diouf bokk nañ ci xam nga bu ñuy xool finaliste si ñett la ñuy doon te Lamine Camara ak ki nga xamante ne mooy Amara Diouf bokk nañ ci ñaari ñu nga xamante ne jamono bi ñu ngi xëccoo final bi waaye seq ko ak genn gone gu ñuy wax Abdes Samad Izalzouli voilà moom joueur Maroc la jamono bi mu nekk ñetti ñi nga xam ne ñoo war a xëccoo li nga xam ne mooy trophée meilleur jeune boobu kon mel na ne Sénégal mën na ci am chance ngir dal di koy gagné bu ñu xoolee nag ci li nga xamante ne moom la ñuy tuddee ballon d'or bi maanaam joueur yi nga xamante ni xëy kenn ci ñoom moo war a gagné li ñuy tuddee ballon d'or africaine Mohamed Salah Achraf Hakimi ak kii di Victor Osimhen mooy ñetti ñi nga xam ne ñooy xëccoo final bi bu ñu xoolee li nga xam ne mooy meilleur coach sélectionneur national Aliou Cissé ki nga ne mooy Walid Regragui ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Abdel Haq Ben Chika ñett ñi ñooy xëccoo li nga xamante ne mooy meilleur coach waaye itam bu ñu xoolee ci yeneen côté muy wala gardien yi foofu dinañ fa gis ku ci mel ni André Onana Manchester United Cameroun ak ki nga xamante ne moom lay wax El wi nga xam ne moom gardien Égypte la ak yi nga xamante ni voilà moom la ñuy wax Yacine Bonou moom nag jamono bi mu ngi fële ci Al Hilal waaye gardien Maroc la ñett ñi ñooy li nga xam ne mooy meilleur gardien li nga xamante ne mooy CAF Award boobu nga xam ne jamono bi ñu ngi ko war a amal foofu la ci Maroc voilà bu ñu xoolee tam meilleure équipe yi maanaam équipe bi nga xam ne moo gën a ràññeeku fii ci Afrique gis nañ ci Gambie Maroc ak Sénégal xam naa ne jàpp nañ ne xañ na Maroc mu ci ëpp chance ci atum ren bi gannaaw bi nga xam ne def na coupe li nga xamante ni voilà mooy saison bi ñu weesu Gambie moom itam am na chance ngir dal di koy nekk waaye itam ci li nga xamante ne mooy dégg nga maam CAF Award boobule. gannaaw loolu English Premier League tey ji am na match yu am solo yu ci amoon ñaar yii nag mooy match yi nga xamante ne jamono yi ñu ngi ko doon xaar mooy Everton ak ki nga xamante ne mooy Newcastle United ci match boobu nag ñi di waa Everton dañoo dal di dóor Newcastle United. Idrissa Gana Gueye bokk na ci jogante googu joué na voilà Everton 3-0 la dal di dóor ñii di Newcastle mu nekk lu doy waar Newcastle nag xam ngeen seen gardien bi dafa amoon blessure keroog ba temps yi nekk ci marché bi di wër ki nga xamante moo war a kii di Nick Pope foofule Dubravka bi nga xam ne ni daaw dañ ko abloon ca Manchester United nga xam ne jamono bi moo nekk deuxième gardien foofu la ca Newcastle tey jii moo doon góolu Everton dal dina koy am ci match boobule Tottenham moom amul chance ndax kat tey bu gañe woon dafay dab Manchester City waaye nag dañu ko dóor West Ham United moo ko fekk foofu la ci dëkkam daal di koy dóor 2 buts à 1 benn bit bi nga xamante ne Tottenham am nañu ko nag ki nga xamante ne mooy Christian Romero moo ko dal xamante ne mooy ñetti match yoo xamante ne dañ ko ko tegoon ni ay daan gannaaw carton rouge bi nga xamante ne amoon na ko fi bu yàggul dara bi mu dellu premier match bu mu njëkk a joué 11 minutes ak ñi di waa Tottenham Pape Matar Sarr nag dal dina joué ci match boobule moom mi nga xam ne coach bi li mu xam ne woon mooy parewul voilà ci weekend bi la ñu koy gën a séentu loolu lañ gënoon jortu waaye tey jii bi match bi di waaj jeex daal dinañu koy dugal ci li nga xamante ne mooy jogante kooku moom kii di euh, Pape Matar Sarr ki nga xamante ne mooy Luis Suarez jàpp nañ ne moom nekk meilleur joueur ci li nga xam ne mooy championnat bu Brésil xam nga moom dafay jógee dem fale ci Inter Miami ñu li nga xamante moo nekk sax meilleur passeur ci championnat boobule marqué itam mooy championnat bi championnat bi club bi ko gagné mooy Palmeiras bu ki nga xamante ni voilà mooy Endrick Endrick moom sax ñi di waa Real Madrid ñu koy félicité ci li nga xamante ni daal dina koy def muy gagné lii di championnat ba ndax kat bii mooy ñaareel bi yoon mu koy teg la di ko gagné ñoom ni ki daaw ñoo ko gagné woon ren ji ñu daal di koy gagné waat te Endrick marqué na sax but ci li nga xamante ni mooy voilà euh, match bu mujj boobu nga xam ne ñoom daal nañu koy am ba tax ñu gagné li nga xamante ni mooy championnat boobulee Amad Diallo moom dafa daal di dellusiwaat moom mi nga xam ne joueur Manchester United la nga xamante ni kat jamono bi dañu ko able woon foofule ca championship bi ni ki daaw moom xam ngeen dikki daaw jëkk la ko Manchester jëndoon sax waaye nag même bi mu ñëwee voilà gis nañu ne amul woon temps de jeu ñuy gannaaw mu dellu si voilà gannaaw gi mu dal di amaat li nga xam ne mooy gaañu-gaañu bu yàgg ci li nga xam ne mooy om bi gaañu-gaañu boobu nag wér na ba fi ne nii nee sax fit na maanaam mën na jouer te jàpp nañ ne amaana mat yi di ñëw dina ci dal bokk li ñuy def mooy full training dal dina koy amal maanaam mu ngi li nga xamante ne mooy groupe bi loolu nag li muy war a ci bokk loolu nag nekk xibaar bu am solo voilà Manchester United bi nga xam ne temps yi gis nañ ne ñu ngi struggle donte ne léeg-léeg ñu am ndam dépp démb rek ci mujj match bu am solo ba ñu gagné seen diggante Chelsea football club waaye itam léeg-léeg ñu am jafe-jafe ci li nga xamante ne mooy wàllum attaque bi rawatina défense bi tam maanaam daal mën nañu wax ne seen poste yëpp a doy waar waaye kii di Amad Diallo bi bu fekkente ne wér na amaana dina nekk am lu bari lu mu leen mën a indil ci équipe boobu ndax gone gi am na xarañte dafa mooy Italie balaa mooy ñëw ci championnat Manchester United duñu leen bàyyi ndax ki nga xam ne mooy Jadon Sancho jamono bii kat kii di Erik ten Hag daal dinay wax ci mbiram moom mi nga xam ne dañ a ngi bi nga xam xam ne ne rëccuwu ci dara loolu nag mbir la moo xamante ne depuis wi booba ak léegi kon dafa nekk ki nga xamante ne mooy Jadon Sancho ay mbiram moom sotteegul li leer mooy avant dina fa daal di jóge comme ni ñu koy séentoo ci janvier bi gannaaw bi nga xamante ne am na club yu koy bëgg ca Arabie Saoudite waaye tam foofu la ci Europe rawatina ca Italie. ba tey am na ñaari joueur Manchester United yoo xam ne jàpp na ne janvier bile amaana du leen fa bàyyi bokk na ci ki ñuy wax Raphaël Varane ak Carlos Casemiro ñoom ñaar ñii de bu ñuy xool nekk nañu ay joueurs yoo xamante ne yu yàgg dafi jaloore lañu ca Real Madrid jamono ñu nekk foofu la ca dégg nga maam Manchester United ki nga xamante ne mooy Varane nag diggante daaw ak ren ay blessure daf ko dal di sonal ba temps sax dafa mujjee ñàkk palaasam ci équipe boobule Casemiro moom jamono yi ñuy wax ak yéen sax wéragul ndax gaañu gaañu bi mu amoon waaye ànd ak loolu yëpp jàpp nañ janvier bi amaana du leen fa bàyyi nekk foofu la ci Arabie Saoudite ñoo leen na ko ci kayiti xibaar Paul Pogba mom japp nañu ne kat manam li nga xamante moy mooy digganteem ak Juve da fay jeex ñu di wa Juventus li nga xamante ci lañ tollu jamono bi moy waxtaan ak ñi nga xamante ñu di entourage ki di Paul Pogba su ko defee ñu dal di takalé ko ci jamm ndax xamaa li nga xamante mo koy xaar muy ay at yo xam ndax ko wara tok ta football loolu du mbir mo xamante man nañu wëy ak mom motax li ñu bëgg moy dal di takalé ko légui te ci process bobu lañu nekk ngir di nga maam ko ki di Paul Pogba bu dee AC Milan moom li ñu bëgg moo daal di signé ki nga xamante moom la ñuy wax Serhou Guirassy nekk foofu la ca Bundesliga ba di ko toj jamono bi nag ñu ngi jàpp ne maanaam lu aju ci njëgam moom 17 millions euh, la tal di toll maanaam 17 virgule 5 millions d'euros mooy clause libératoire am te ñii di waa AC Milan pare nañu ngir fay koppar yi ñu toll moom nag biñ tàmbalee saison bi ak léegi lu toll ci 16 bi dal dina koy marqué foofu la ca Bundesliga moom kii ñuy wax Serhou